مبين لقد ما بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لقد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلخي لم يرخص جالب النيران أو جالب الخارين والمسران لم يلقني درر نار الدنيا وابتسني الباني بخير سنيا ملكني ما لم يبه عني وخادني بخاه بالمن كرم

نحى النفوس كلها بفوت لم تنخني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما ناني جدلوا موت الذين كابدوني بدلوا من موت نفسي ما ناني جدلوا

وببخائي يسر أحمدا كفاني الباخر مما تسرمدا وببخائي يسر أحمدا نفاني ولم يدرني ولا يدرني كل علي ولا ترسعني الأمراض والممات وخواسمي من الشمات علمني بخودي ليا البيت رافيا بأمتيا علمني بخودي ليا البيت رافيا بأمتيا علمني خليلا له وحبيبا له ظاهرا وباطنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل والله على ما الله تبارك وتعالى لي ببيعة الثلاثة وثلاثين والدمائر وأشهد المل الأخلاق بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالعز لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأن الموت وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى طوبى ترفع الملائكة إلى طوبى ترفع كتب الله تبارك وتعالى أنك كاتبة أنك كاتبة نازل الروح ثمنه الله تبارك وتعالى عنده حينئذ كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف يجاور الله يجاور الله يجاور الله تبارك وتعالى في الدنيا في دفع والجلب أربع من ألف سنة بعد أزل نعطيه من الحق المبين والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل معطيه من الحق المبين والله على ما dalee nag jàmm ci seen émission bii di waajal 18 safar ni ngeen ko teewluwee léegi ñu daal leen di baaxee xasaay du jour tey nag euh, biñ leen jagleel di xatimatu munaajaat yi nga xamante ni euh, kuréel boo xamante ni ay tout tànk euh, ñoo fa nekk ñoo ko doon jàng rek muy couleur bu daaray noorey ni bu Liberté 5 ci naka noonu rek dañ leen di jox xibaaru màggal gi dañ koy dooree ci ndigal yi nga xamante ni wàcc na bàyyeekoo foofu ci bërëb bu sell bi ci ki nga xamante ni muy xarit général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ndigal li mooy euh, bu kenn safaar nañu dajale li ñu am yëpp daal di koy andi Touba fas yéene euh, màggal euh, bés bu sell bi nga xamante ni xaadim rasul moo ko woote ne nañ ko santale borom bi. ndigal li wàcc na te murit jëfee ndigal la ñu xam waa Asafinatul Amaan li ñu xam ne rek sëñ Muntaxa xalif général bépp moom li mu xam ne rek mooy yéeneem nekkoon na benn ci njabootu Cheikh Béthio Thioune bi daal di booloo waaye daf ginnaaw ba mu joxee ndigal daal di teg ki nga xamante ni mooy. sëñ Sall ndigal Thioune di taaw euh, bu góor ci euh, moom Cheikh Béthio Thioune ngir rek mu wëyal euh, liggéey bi nga xamante ni way juróom bu góor mu ngi ko doon def ci yoonu murit ca naka noonu la ñu gis mbooloo mi daal di xaajaloo ñi aw ànd ak sëriñ Saliou Thioune waaye ñeneen ñi ànd ak ki nga xamante ni mooy Aïda jàlloo moom nag sëriñ Mountakha Mbacké ndigal li mu jox waa Safinatul rek du lenn lu dul ñu daal di leen xamal ñoom ñi nga xamante ñoo ànd ak Aïda Diallo war a si fi fi nga xamante ni mooy euh, Ngàmbu di dëkk bi nga xamante ni da nga koy jot laata ngay dugg Touba di leen tere bépp rassemblement ak bépp bâche waaye nee nañ kër yi mënuñ ci tere benn gan daal di fay dugg. wante bépp yëngu-yëngu rek lu mel ni li fi amoon daaw ñu ngi leen koy tere di leen ko aaye ndax dëkk bii di euh, Ngàmbu ak euh, Touba ñoo yem benn àtte képp bësu Serigne Touba yi nag di màggal gi lenn rek lañ si ñaan bokk taalibe yi muy eh, jàng alxuraan waaye it jàng li nga xamante ni mooy xasida yi nga xamante ni ku tedd kii moo ñu ko fi waccal bëgg ko lool fonk ko lool dem ba naan sama xasida yii de na ngeen ma ko fonkal ndax bu ma leen koy jox day mel ni sama yàpp yaram bi lay dëgg di leen ko jox li bokk na ci xibaar yi gën a fës eh, ci màggal eh, Touba bi di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi yéen a ngi woon ci seen émission waajal du site safa di leen jox dig daje yeneen yoon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 Ndiaye wala leneen euh, mën nga ñoo woo ci 78 601 11 11 wala nga woote ci 77 972 92 94.